Baye Ahmadou Mokhtar. Baye Ahmadou Mokhtar. Cheikh Mouhamadou Moustapha mii mi ngi ñëw di la nuyu si. Cheikh Mouhamadou Moustapha mii moo ñëw di la nuyu si. mii jëwriñ ca sa njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mii sa jëwriñ ca njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. moo ànd ak euh, ëpp ci mboolem bunti kër yi Cheikh Mouhamadou Baara moo ànd ak li ëpp ci mboolem bunti kër yi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. xam naa su ma tuddee Serigne Cheikh mii. nee xam na bu tuddee sëriñ Cheikh mi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké. sëñ Sidi Ndar. mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Sidi Ndar. mu ànd ak sëñ Amar sëñ Cheikh Thioro moom sëñ Amar. mu ànd ak sëñ Cheikh Thioro moom sëñ Amar. ak sëñ Baara sëñ Abdoul Karim. ak sëriñ Baara Abdoul Karim. xalifa sëñ Abdoul Karim. xalifa sëñ Abdoul Karim. ak sëriñ Xaadim Moussaïn. ak sëriñ Xaadim Mbacké Moussaïn. mi xalifab sëriñ Moussaïn Baara. sëñ Abdoul Aziz. xalifab sëriñ Abo. xalifab sëriñ Abo. xam naa Serigne Abdou Aziz mii. mu ne Serigne Abdou Aziz mii. teewal fii waa kër Serigne Khadim Modou Baara. teewal fii waa kër Serigne Khadim Modou Baara. Serigne Modou Baara. Serigne Modou Baara. di xalif di xalifam Serigne Abdoul Karim Serigne Abdoul Khadim. moom it mu ànd ak ay rakam. kan ci waaw sëñ Ahmed waaw sëñ Bas mu ne sëñ Basiiru moom it ñëw na waa kër sëñ Ahmed. di waa kër sëñ Ahmed Baara. ànd ak sëñ Alaaji. ànd ak sëriñ Alaaji. ak sëriñ euh, Malick. ak sëriñ Malick. ak sëriñ Xaadim mu Cheikh Sidi Mokhtar. ak sëriñ Xaadim mu Cheikh Sidi Mokhtar. ànd ak sëriñ Modou Aïcha. ànd ak sëriñ Modou Aïcha mu sëñ Sidi Mokhtar. xam naa ku mu tuddul keneen itam. xam na ku mu tuddul keneen it. sëriñ Bachir euh, Mbacke. mu ne sëriñ Bachir Mbacke mooy mi ngi fi. mu sëriñ Abdoul Aziz Baara. mu sëriñ Abdoul Aziz Baara. ànd ak sëriñ Ahmed. ànd ak sëriñ Ahmed. sëriñ Abdou Mbacke. ak sëriñ Abdou Mbacke. ak mboolem ñi fi nekk ñëpp. ak mboolem ñi fi nekk ñëpp. sëriñ Lamp Diop mi ngi teew. sëriñ Lamp Diop mi ngi teew. teewal Baye Moustapha Diop. teewal Baye Moustapha Diop. mi xalifab sëriñ Naan Diop. mi xalifab sëñ Daam Diop. sëñ Ñaan Diop. mu sëñ Naan sëñ Ñaan Diop. mu ne Alaaji Daam Diop. Touba Ndiobène Ngunta. Touba Ndiobène Ngunta. sëriñ Sidi Amar. sëriñ Sidi Amar. xalifab sëñ sëñ sëñ euh, Modou Amar. xalifab sëñ Modou Amar. ak mboolem ñi ci ànd ñëpp ci délégation bi. nee na Serigne Moustapha ñëw na. di dox tànk ya nga xam ne. di dox tànk ya nga xam ne. moom la mag daan dox. moom la mag ñi daan dox. te muy tànki kilifteef. te ak tànki taalibe. ak tànki taalibe. ndaxte yaay Cheikh Mouhamadou Moustapha. yaay Cheikh Mouhamadou Moustapha. Baara. te li la waroon sa digganteeg sa mag yu baax ya ci kilifteef ak taalibe rawatina Cheikh Sidi Muxtaar lépp matale nga ko ba mat sëkk moo tax gannaaw seen gannaaw itam taxawaay bi nga war a taxaw seen gannaaw taxaw nga ko ba mat sëkk dara desu ca moo tax Cheikh Moustapha wax ne xëy na xelam mënta bañ a ñàkk dem ca waajur ya xëy na xelam mënta ñàkk dem ca waajur ya waaye amul dara luñ ciy jàmbat wala lum dara lum cay jooy ndax saa su geesoo gis la ndax lépp yaa ngi koy matale bis bii nag su masaa ñëw bis bii nag bu masaa ñëw mag ñi nii lañ ko daan defee tàmmulee ko ca Serigne Abdoul Aziz Baara ba ku ci mag ci ñaari kër yi ba mu agsi Cheikh Sidi Mokhtar waaye ndigal waaye ndigal li nga joxe. mooy bis bi ñu yaatal ko. mooy bis bi ñu yaatal ko. ndax bisu Cheikhul Xadim la. ñëpp a ko bokk. waaye rawatina njabootu Cheikh Moustapha. ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. moo tax saa bu bis bi ñëwee. Serigne Ousmane mi ngi ko dénk. mu ànd koog taalibe yi. ñun la ñuy njëkk a woo. liggéey bi ñu ciy liggéey. suñu accès. nee na ñoom ñii lañ cey jiital loolu nag dal na xel bu baax a baax moo tax Serigne Moustapha Matiley ñëw tey biñ ñoo suba la màggal gi gannaaw ba ñu ci amee sa ndigal ñëw feddali yooyu ma wax lépp muy kilifteef gi ak taalibe gi bu subaa nag ci bis bi gannaaw dañ koy dundal fa guy mbind ca Touba guy mbind nee na ñëpp defee ko seeni kër moo waral ñu ñëw tey di feddali si yooyu yëpp di la ñaanal yàlla suñu boroom mu guddal saw fan may la ak wér ba lépp loo xam ne xalaat nga ko sam xel yàlla suñu boroom defal la ko di jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te nu ànd ak yow nee na sëñ Moustapha nag mi ngi sant bu baax a baax di sant it mboolem ñii mu bokk ak Cheikh Mouhamadou Bara nee na day wax ne moom seen jëwriñ rekk la di wax ne jaam jaamaan rek la nee na woote yim leen di woo dafay jege te saa du saa su wootee fu waay man di ne lu mu sori sori dana bàyyi ay iteem ñëw fekk si ko kon mi ngi sàkku nga ñaanal leen ñaanal mboolem taalibe yëpp képp ku ne lu mu ci waay soxla mu ci jaamu yàlla ga mu ci wér ga mu ci taalibe ga yàlla suñu borom defal na ko ñëpp ci barke bis bii tey nee na sëñ Moustapha di dellu di sàkkuwaat ba tey nee na réew mi bari na ay nax-nax bari na ay balaa bari na ay gàllankoor bari na ay faatu nee na rawatina ci jamono jii muy sàkku nga ñaan ca loola ci darajey borom bis bii lépp saafaroo mu ne waaye njaboot gépp ñi ngi àndaat wax ko ne ko seeral ci sa kanam na la see na ne Serigne Moustapha Matiley mii fa waajuree jaaroon jaaroon ak nañu daa jëflante ak seen i njaboot foofu rek la jaar te da gën a yaatal gën koo dundal gën koo sellal nee na kon njaboot gi yëpp ñi ngi ànd moom di la seereel jàpp guñ ko jàpp di wax ne ñoom jàppewuñ ko sax mag waaye waajur lañ ko jàppee ndax fa suñu waajur daan taxawoo nee na foofu leen taxawoo kon nee na waajur la ci ñoom nee na sëriñ ci ñoom ñu ay taalibeem nee na it neex naa àndal lool ndax nee na bokk naa ñoom lépp lépp ñoo ko bokk nee lépp ñoo ko bokk. muy dereti ku tedd ki muy dereti ku tedd ki. waaye li ñu gis moom. waaye nee na gis nañ ci moom it. li ñu yilife am li ñu am nawle. mi ngi ci moom mi ngi ci moom. kon nee na ñoom ñëpp ñu ngi sàkk nga ñaanal ko bu baax. ñaanal njaboot gi yëpp. ñaanal njaboot gi yàlla def jàmm. ñu yàgg fee ñëw. yàgg la fee fekk. ci daraje Cheikhul Khadim jërëjëf Mbacké macha allah sëriñ Cheikh mu ne mu ngi jéggalu ba tey dafa am lu des ci kàddu yi tuuti nee na liggéeyu lislaam bee nekk ndakaaru di néegu yàlla suñu boroom nga xam ne Cheikh Saliou Mbacké moo wutoon barab ba ba defar plan ba amoon ci Niger ak yéene ba amoon yéene yi tàmbali ko sëriñ Alaaji Mouhamad Lamin Baara Falilu ñëw teg xeer wa ba am luñ fa dajale woon bi Seex Sidi Muxtaar ñëwee it mu tàmbali nag liggéey ba liggéey bu lislaam boobee ba liggéey ba àgg na ci liggéey loxoy Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu wax nag ne ñooñi nga xam ne dañoo yoroon liggéey ba mu jaar ci seeni loxo di Cheikh Saalih Mbakke di cheikh Mouhamadou Baara di cheikh Sidi Muxtaar kenn ku nekk dafa am bis buñ la ca jagleel mu ne bisu talaata ba dañ ko jagleel cheikh Salih Mbacké bisu àllarba jagleel ko cheikh Mouhamadou Lamine bisu alxames ba ñu jagleel ko cheikh Sidi Muxtaar nee na sëñ Mbacké yu fay bi mu seet si sëñ Muntaqa boole koog Abdoul mu ñëw ci Serigne Moustapha wax ko ko mu ne ko nangul na leen ko waaye nee na loolee moom mu ci dara nee na lépp yaa ko moom mi ngi moo tax muy sàkku ndigal ca loolee nee na tegaat lépp yi sa loxo nee na loolu la ko sëñ Moustapha waxoon macha allah. auzu ci ndigalul sëriñ bi sëriñ Moustapha mu ngi fas yéene jëfe ndigal sëñ bi wax ne mu ngi lay sant waaye cant gi nag mu ngi ciy jiital suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xamante ne moo dogal lii jaarale ko fu tedd lool ba mu egsi ci moom waaye lépp doonaat cërub sëriñ Tuubaa mu du ko ci sant di ci sant sëriñ Tuubaa bu baax waaye di ci sant Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne jataay yëpp ñoo mu wax ne moom de xelam dal na ci yow lool ndax digganteem ak sëriñ Cheikh Matili ba mu doone sëriñ baara ñëpp xamoon nañ ko te dara munu ci woon a yokk bi mu doone sëriñ Touba loola it li war a jataay bi rek moo ko waraloon kon mooy lu nga xam ne ñun ñii te yow tey nga fi sunu kilifa mu ngi nu koy dénk mu doon loo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na ko bàyyi ci boppam fas ko yéene dundal ngir jëmmi yàlla ak ñooñee nga xam ñoo ko taxawaloon ndax ñooñu biñ ko dundalee ba egsi fii de ñëpp ak yokk ak njariñ rek lañ ci gis ak bokkoo gu noppale ci ñëpp mu ne mel ni ab sagla ci kër gi di kër seex Mouhamadou Moustapha di kër seex Mouhamadou Lamine ndax kat ñu bari ñu koy wax. ñu baree baree bari ci askanu Mbàkke ñi ngi wax taxawaay bii am ci ay kër yi mu doon loo xam ne kenn ku nekk ci ñun jàpp nañ ne lu ñu war a sàmmoonte ci sunu biir la war ko dundal ci am yéene sax ko dundal yow nag nee na li ci war lépp yaa ngi koy def mi ngi lay sant ci taxawaay bi nga xam yaa ngi koy taxaw ci biir kër Serigne Bara ndax moom nga fa taxawal jàpp na ne njabootu sëñ Bara gépp moom moo leen war di saytu ci biir ak ci biti ni muy saytoo fii mu nga nekkal ko foofa dafa def loo xam ne bu fa nekkoon mënut a def la ko raw mu nekkal la fii it nag ndax fii it say rakk ak say mag kenn ku ci ne war nga koo taxaw mu nekkal la fi kon nee na noppal nga ko lool mu ngi lay sant ci loolu. di santit njaboot gi nga àndal gépp ci ka ci gën a tàmbale ci yow ba ci ka ci gën a doon tuut tànk mi ngi koy sant di leen xamal ni ne du leen fàtte benn yoon ci li ngeen seq di leen ñaanal waaye di sàkku ci yéen ngeen di ko ñaanal ndax xam nañ ne ñaan moom ku ne la war waaye nag yaakaaris na ko ci yéen lool moom nag loolu day liggéeyam dafa amut benn yitte amut it benn sañ-sañ bu dul loolu ci di toppatoo askan wi waaye rawatin njaboot gi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole ci kenn jiituwu leen ci loolu ci gàttal rek sëriñ bi xam naa li nga yéene mun ma ko wax ci am naa mbetteel lool ci wax ji it nag kon maa ngi koy jégalu bu lu ci dëng rek maa ngi koy tuubal yàlla dina ko tuubal waaye sunu sunu lu lu lu lu lu lu bett la rek ñaan yàlla sunu borom ngeen yàgg fi loolu yàlla ngeen fi yàgg ci wér yàlla na yàlla eggale seen i yéene yi ak seen i mébét ci dara ji Cheikh Mouhamadou Lamine Bara